Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, mes propos seront d'abord des propos de remerciement. Nous sommes venus vous voir à votre bureau pour le cas de notre collègue Biram Souley. Nous en avons parlé en commission. Vous avez pris l'engagement de faire tout ce qui est possible pour qu'il puisse recouvrer sa liberté. Biram est libre depuis hier et nous tenons à vous dire merci, merci à vos collaborateurs et nous espérons que tous les autres détenus aussi autour de famille. Je pense bien entendu à mon frère et ami Fadilou Keïta et Bachir Diomaye Faye. Ceux qui ignorent le passé sont condamnés à le reproduire les mêmes Il y a quelques années, en tant que politique, lorsque nous devons combattre Ablaye Wade, on a fait les assises nationales du Sénégal. ñu ñëw toog waxtaan parce que jàppoon nañ ni bi ñu boycotté 2007 que ñun politiciens yi ñu réew mi que ñun politiciens yi lépp luy defar réew mi ñu rek ñoo am xalaat bi on n'a pas le monopole de la science infuse bi ñu defee assises yi mu jur Benno Siggil Sénégal Benno Siggil Sénégal def fi lu kenn deful en 2009 beaucoup de maire maires sont devenus maires grâce à Benno Siggil Sénégal ñu dem élection présidentielle ñu ne Benno Siggil Sénégal bu amee benn candidat ñu gañ Macky Sall doomu Abdoulaye Wade yàlla dogal mu nekk président kon waxtaan lu jëmale ci réew mi wala defar réew mi bokkul dara ak président de la République président yàlla moo koy fal te ku war a nekk président yàlla xam na ko ba pare ba ñuy xeex Abdoulaye Wade di dem Benno Siggil Sénégal di dem assise yi ku ñuy waxoon Macky Sall mooy falu duñ ko gëm te pourtant moom moo falu ba mu faloo ñu daw ci biir parti yi nañu KPS bu leen votel Abdoulaye Wade votel leen Abdoulaye Wade mu am deux ans en plus parce que Macky xale la bu faloo daf fi yàgg dina fi def deux mandats Macky def na deux mandats tey jeexul kenn dafa dee kenn dafa rafle kenn dafa ñàkk dara il faut respecter la dignité des gens fii ku nekk lu la fi indi ku nekk sa dignité mais yàlla mooy may yàlla mooy fal bu Ousmane Sonko day nekk président kenn mënu si dara ala kulli àll dafay nekk bu ko Khalifa Sall waree nekk naka nekk li ñuy ñaan yàlla mooy ki nekk président yàlla nekk gën Sénégal 2012 bi ñu falo la Khalifa taxaw ne waaw Benno Bokk Yaakaar moo fatu mais parti yëpp nañ dem seen parti liggéey bàyyi bàyyi Macky mu doxal ne waa PS attention parti bu ndaw bu faloo parti yu mag lay dunde bi biñ demee référendum mu ne on vote non parce que la conséquence mooy que suñu démocratie mooy manque régulation et loolu mooy ñu indi lii yëpp dans une démocratie on n'a pas une carte à jouer dans une démocratie on a un rôle à jouer acteur politique bu nekk da nga am cër ci sa kanamu askan sa kanamu sa ay bokk sa kanamu sa ay militants sa kanamu ay rakk et il est important que acteur bu nekk soit à la hauteur du moment à la hauteur des enjeux du moment c'est pour sa que Taxawu Sénégal dem dialogue et on assume d'être les textes qui parce que ñu nañ ñu saaga dealer ok on est des dealers traite ok on est des mais on est expérimenté pour savoir que le temps est le meilleur des juges su leen taxawoon ñu jàpp Khalifa Sall ñu ne non élection du fi am fu ñu mujjee jël suñu ay mandarine ak suñu maire yëpp de rang de mais muñ na ko ba mu jeex bi Khalifa génnee on pensait que c'était fini te yàlla indiwaat na ko ba ñu def yeewi askan bi mu am cër lool nag ci taxawaayam ci kilifteem kilifteefam ci dalam ci am xelam ci jox cër doomu adama ba ñu am li ñu am tey am ko ndax dañu ànd amandoo ko kon ñun kenn mënuñu xas on ne permet à personne de faire son marché dans notre histoire notre histoire ne commence pas en 2020 elle commence en 2009 parce que nous avons gagné et nous avons gagné avec Benno Siggil Sénégal nous avons regagné avec Taxawu Sénégal Nous avons voté non au référendum. Parce que le combat contre le troisième mandat n'a pas commencé, la a commencé en 2012. Donc ceux qui n'étaient pas là ne peuvent pas nous faire la leçon. Respectons-nous. nañ joxante cër bi ñu ñëwee léegi suñu collègue ñu interpellé pourquoi ngeen voté abstention ci ci amendement bi parce que dañu wàcc suñu ay collègues rappelé leen ñoom amendement bu ñu waxtaanewul ñun am lu ñu ciy wax mais les textes du dialogue on va les voter comme ni ñu amee ful la bi ñu indee article 87 ñu ne ñun on vote pas pour l'article 87 donc dañu sàrte wante. merci cher collègue.